mais mais balaa may tàggatoo waaw am naa loo xam ne dégg naa ko monsieur Tine wax ko. Ah, allez-y allez-y deux aspects. où je suis quand même pas d'accord avec lui. d'accord c'est d'abord sur le ticket vice-président. Mhm. bu ñu fàttali ne 23 juin moom lañ doon xeex. Mm. effectivement mun ñu xeex dara ba pare indiwaat ko. Mhm. man loolu laa jàpp. le ticket de vice-président. Ah, moom lañu defoon avec le car bloquant di ko xeex. Mhm. tey c'est ce même ticket là qu'on veut expérimenter alors qu'on a vu le cas de les gens ne vont pas aller interroger Ousmane Sonko kay armée bi di waxal force défense et de sécurité yi ak ku ñuy jox charge yi. il s'appelle Bassirou Diomaye Faye il ne s'appelle pas te tey dégg nañu te tamit El Malick ne dañ koy coacher. Mhm. ñu coacher un président. loolu il l'a dit publiquement dinañ ko coacher xool nañu ko non non un président ne se coache pas. Mhm. un président assume des responsabilités. yoo xam ne par rapport à la gestion d'un pays. Mhm. et met en place un gouvernement je vois mal et je doute même que ce ticket là va va voir le jour dans les cinq parce que day indi mënoo jël un numéro un très populaire ko derrière un. non moom laa la wax moom laa donc ce débat là. ce débat là man pour man c'est que sachant le pouvoir marche surtout en Afrique. Mhm. c'est c'est c'est très dangereux deuxièmement. Mhm. je suis pour une monnaie aussi notre propre monnaie. Mhm. mais il faut aller aller dans des réalités le dire comme je suis d'accord avec lui moi-même. on a vu tous toutes les péripéties dans l'UEMOA. Mm. mais est-ce que les Sénégalais sont productifs nous déjà il faut régler un problème crucial d'abord mm. c'est que nous on on a une économie à 95 pour cent informelle mhm. on n'a pas des industries solides on a pas une, des revenus solides qui puissent nous avoir un, mat, un matelas financier à l'instant T pour parler d'une monnaie d'une monnaie locale boo xam ne am na doole mhm. je ne suis pas je ne suis pas d'accord ak ni ñu arrivé tey avec l'euro mais aujourd'hui nañu xool Gambie bu ñu cité mais Gambie boo fa demee boo fa wéccee ko saak lañ lay jox. loolu on se nga dem Guinée bi Guinée pareil Guinée pareil nga dem Nigéria moo fi gën a am naira moo fi gën a taxaw mm-hmm. mais gin devise dollar bi la ñu gën a jël ko naira bi mm-hmm. nga dem Maroc pour devise bi génn c'est tout un problème nga dem nga dem Éthiopie seen devise du génn Afrique du Sud et c'est pas facile pour une un État parce qu'il faut d'abord être très productif L'Afrique du Sud, ils ont des mines, mmh. ils ont une économie qui est assez solide. Yeah. Nigeria, ils ont une économie. Le Ghana boo xam ne xaw na nuroog Sénégal mais demoon nañ fi presque à défaut de paiement yàggul. Mmh. Donc avoir une monnaie souveraine, c'est bon. Mais d'abord les mécanismes qui nous accompagnent et je suis là où je suis d'accord avec lui, mmh. c'est que nous devons aller vers le renforcement de de, de l'UEMOA pour que monnaie boobu mën a gis boppam. après dans le cadre de l'UEMOA mu mën a flotter mais Sénégal bu dugg ci boobu ci ci loolu. mais ñoom Adja Assou yi léegi ñu dem wuti ay devises denc seen xaalis économie économie bi daanu ça ça ay dala seeg affaire yooyu donc il faut aussi que quand on parle c'est bien beau de l'entendre aussi de dire une monnaie souveraine c'est pas qu'on ne refuse mais lu tax Union européenne mën a dajale ba def l'euro face au dollar c'est parce que il voulait avoir quelque chose de solide pour mën a compétir sinon yow boo amee sa monnaie commune tu n'es pas productif tu as mm-hmm. yow sa presque li ñu produire tey chinois yeeg ñeneen ñi ñoo koy jël. Mhm. mais yow sa monnaie bi fan la lay amalee njëriñ. donc c'est des question économiques Amadou Ba waxul ne on ne veut pas de monnaie dafa ne. il est quand même très prématuré di ñëw di ne dañu dañuy def benn monnaie. Mhm. mais je pense je pense. c'est c'est un débat entre les élèves et le maître. <laughs> ils vont ils, ils vont <laughs> peut-être que sax ils vont venir avec le maître pour pour s'allier. parce que l'essentiel. Mhm. foofu laay tëjee. Euh, comme on a eu un débat très civilisé les Sénégalais doivent aller versa mooy képp ku gañee suba nañu xam ne yàlla moo ko fal weeru koor lañu nekk ñu gëm ko mhm. Mhm. gëm ne bu faloo nañu gañe tamit am nañu seeni compétence mhm. yoo xam ne waruñu toog cinq ans ne nañu ñuy opposé wu nañu dajale fi ñu am suñu pétrole suñu gaz suñu koom-koom suñu xale yi li muy wax la violence électorale ñu mën ko wàññi pour ne leen l'essentiel c'est de produire de la richesse eh pour que nos avoir de quoi suturaale seen kii c'est de pouvoir produire de la richesse pour que xale yi ba a jël gaal yi di dem di kii c'est pour regagner notre dignité ba nga xam ne bu ñu wuti visa du ñu rangloo ci mbedd yi ba pare ñu mën ko am fa facilement parce que après tout je pense que moom ak man Diomaye ak Amadou mhm. on doit partager l'essence mooy lan que sénégalais bi dignité am dañ ko war a wane à travers le monde foo wax sénégalais mhm. ñu xam ne ne kii c'est une personne qui a une valeur. qui a qui am na lu mu bëgg dëkkam mu ngi koy développé te dematul bitim réew mais day attirer ñi ñu ñëw dëkkam. je pense que loolu mooy euh, la finalité du développement social et économique d'un pays.